comprendre comme li ma waxoon d'habitude rek génn génn nañ si ñaan wax nañ ñu ñaan si dugg si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabbil alamin yàlla defal nañu jàmm ba am ndam si kaw Modou Lo ñu ngi santaat yàlla di ko ñaaxuwaat di ñaaxuwaat suñu supporter nañ gën a def nànk nañ teey ànd dal te xam ni Balla Gaye moo am ndam incha Balla Gaye 2 bi. ndam Balla Gaye lii du def ñu bett Balla Gaye 2 tàmbal nañu lii du def ñu bett nii dafa ñëw rek bett ñu déedéet lii daf ñu ko tàmbal ñun avant combat bi xamoon nañ ni dañuy am ndam billaay walaay. la xamaloon ne am ndam ci kanamu Modou Lo. mais Modou Lo du dara du cent franc Modou day nekk di xaaju bu jàkkaarloo Balla Gaye 2 du wax. mais est-ce man. dama xam ni sama mbër day am ndam te noonu la ko yàlla defee. naa ko bu baax Balla duma na ko daan na ko jeex na tax waa ji jeex na. non man Balla Gaye de dama ko wóolu si bépp côté parce que mbër la boo xamante nii foo koy jéem a xalaate technique la si bëre am na xel. muus na moom daal bëre macha allah yàlla ko yàlla bu ko cat dugg waaw. tey lan la Balla Gaye bëre expérience la ëpp ko wala lan la. Balla Gaye da ko dàq bëre ëpp ko xel wan ko ni maa ko maa dàq bëre duma ko daan ko loolu la ko dàq loolu la ko wan tey dafay nekk di wax nii Balla Gaye ñëw na ko yow maay sa papa bu jeex dàq bu bëggee ñu dolliwaat ko muy trois jeex na. deux zéro yi yàlla ñu ko may rek ñu ngi ñaan yàlla beneen yoon bu ñu amaatee combat mu mayaat ñu bu gën a neex bi ñu gën a féetewaat te Balla Gaye de yàlla bu ko yàlla delloo ginnaaw yàlla ko yàlla delloo si kanam ñu gën a avancé si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa Molo, ko niyan. Man, tabakoy niyan. Kung babi mo amati, almadan. jadi kisin ya naman. Diriela, sampiola. Rawalo dara. Le palagay do, do samaro. Wow. Ano ba ang palagay sa kanina? yul ang eh, sabi ni. Kung ni Jokalak eh, pa rin. Sinumbar mo, de Wow. Ang masinda, no? bëgg nga ñu dajewaat. Eumeu Sène troisième fois. dégg naa ko ci biir waxam mu naan du mos a daje deg Balla moo yor waa bi li ñu soxla moo ko yor bu ñu bëggee dajeeg moom dañu koy dem jël waaw. da nga bëgg waa bi ñëwaat seen ko Balla Gaye. incha allah day am sax.